woote jamono ak fi jamono ji toll ñu woote ngeen buy suñu def ngeen lu rafet di siyaare sama gaa yi ma bokkal liggéey bi yëpp ci zone de Bawol bi ñu nekk euh, région de Diourbel commune bu Touba maa ngi nuyu ñëpp ci turam kenn ku ne turam ak santam di wax euh, li ñu fi dajale muy bëgg Seydina Ousmane Sonko mu sell mi <coughs> loolu rek moo ñu fi dajale ndax tam mbir boo ci nekkee ay at di ci xeex ba yàlla jox la pouvoir <coughs> coono ya nga amoon ngir jot ca la nga doon xeex bis boo ko amee danga ko war a fonk ndax nit ki itam bu fekkee da ngay dangaa liggéey ba am sa alal boo avant nga koy liggéey danga sonnoon lool pour dajale ko bis boo ko amee dangaa war a sonn lool ngir téye alal jooja politique nag euh, ci département de Touba la woon woon na la woon la ko lan ma ko won ni boo gungee président ba mu gañee ay privilège da lay safar dalay soxal ñun ay privilège soxaluñu ak bëgg moo ñu sonal bëgg Seydina Ousmane dañoo sonal lool te ndamam mooy suñu ndam projet bii lu ci waay daj Sonko daj na lu ko toll te taxut mu jàmbat ko fenn ba yàlla defal ko ndam Touba gi ñun nekk nag lépp lu xam ne suñ ko defee Seydina Ousmane ko ndamam dina jëm ca kanam xoolu ju ma Samba xoolu ju ma Demba ca loolu la ñuy xëy ci la ñuy gont ndax tam campagne bi ñu jëm élection jaar na fi jaarate fi Seydina Ousmane yàgg na giñ naa nekk ci bulletin yi danaan woteel leen diw ñu woteel diw tey nag moo fas yéene nekk ci bulletin yi kon ñun liy suñu warugar muy ñu xeexal ko mu gañe assemblée bi ñu jëm le 17 incha allahu rabbi loolu mooy suñu yéene amaana nag dëkk bi am na coordonnateur muy Cheikh Thioro Mbacké nekk na fi waaye ñun dañuy campagne ak suñu propre moyen laaju ñu ko dërëm ndax fii ñu fi nekk ñëpp ay borom responsable la di ay gor yu liggéey te xaaruñu ci parti bi dara loolu bëgg seen Ousmane Sonko ñoru leen seen Cheikh nag ay jamono ci ginnaaw jokkoon na jokkoon na ma nit ku ko jege ma ne ko seex ne ko ay góor danoo àndandoo ak moom xeex bi projet bi. li tax euh, ay góor àndoon ak moom xooluñu ci woon ay privilège adduna nit ki boo ko mënee boo ko boo ko a jox lu mu amul boppam lenn rek nga ko mën a jox muy respe ñun respect lañ soxla ci seex loolu lañ soxla ci moom ñun soxla ñu ñaar dërëmam waaw d'abord na yëg militant yi ndax fii parti bi fu mu àgg militant yi ak sympathisants yi ñoo fa àggale wax naa ko Biram Diouf sama xarit la dañuy diggante la ras li ci des mu ñu jubli ci liggéey bi liggéey bi mooy wàcc ci terrain bi ay ay kii am na kii coordinateur la kii mooy yor ay ay euh, kii mooy action action yooyu taxawul xam nga moo taxaw bëgg Seydina Ousmane tamit dëgg di dundal parti bi bañ a dundee parti bi loolu mooy liy dëgg man ci loolu laa nekk ci lay xëy ci lay gon fii ma ñëw nag muy xaadim mii ma woo ñu ànd liggéey bi man ak moom Abdou Sylla gars yi ñi suñu ginnaaw yëpp muy waa artisanat yu Touba ak yeneen collectif yi nekk suñu ginnaaw bëgg Seydina Ousmane dañoo jaral lu ne musuma nooy garanti ci àdduna musuma xeexal kenn ci àdduna ku ma tooñ ma baal la Seydina Ousmane moo ma jaral xeex gi police ba yàlla jox ko ndam kon ndam loola sama bakkan bi laa ci garab ba loola ñu sàmm ko képp koo xam ne ci ne dangay noose parti bi dina la danoose fii ci Touba li ma bëgg muy lan ñun ñi nekk ci Touba bokk Pastef bokk Pastef liggéey Seydina Ousmane Sonko nañu am na dañuy jàll nan man di jàll suñu message direct ñu ni répondre ndax nag ñun ñoo nekk ci gox goxaan yi xam li manque ci koñ yi am ñu mere woon régime bi fi jógee loolu li taxoon ñu mere leen am yu manque ci koñ bi ak ay hôpital yu nekk ci koñ ci dëkk bi ambulance sax amu fa jigéen bu fay matu wallahi azim dañuy woo beneen hôpital ñu am abu fa ambulance ñu ñëw ñu ñëw jël si ko muy yu metti te ñaata ambulance ñoo gaare parking de la république kon dëkk bi danoo bëgg lii ñëw ci dëkk bi di dem fam daa fam war a jëm ñun lool lañ soxla mais waxuñu xaalis na ñëw dugg suñu poos incha allahu rabbi nag campagne bi danañ ko door ci kàttanu yàlla ak suñu propre moyen ci kàttanu yàlla même bu doon war ab saretu mbaam di campagne dinañ ko def bu soob yàlla ñun xaaruñu ci Seydina Ousmane ko dara lu dul avancement bu Sénégal ndax xam na ne mën na ko te mate na ko te liggéey bépp rafet ndax ku def impôt au domaine 500 rëndaloo sàccoo yombul am na ñoo xam ne tey ji 5 mois rek bu ñu ko defee ci ab poste politique commencé randal commencé sàcc ñu ne loolu du ñu dal loxo yu set wecc lan soxla te Seydina Ousmane loxo yu set na macha allah kon dañ koy gunge gañe gañe waat lan wax gañeeti fii ba 2050 Pastef kese bépp parti bu fi nekk ñu rey la spécial nga faatu fa yàllaaw ñun loolu la ni ñaan yàlla subhanahu wa kon ñoo ngi ñaan ñëpp le 17 mooy rendez bu baax bi képp képp ku xëy boo amul oto am na ay numéro yu ñu war a joxe incha allah après foo man di nekk ci dëkk bi dinañ la jox oto nga dem wote ci jàmm ak salaam bépp militant bu am jafe-jafe talal na suñu loxo fii ci dëkk bi nga ñëw ànd ak ñun liggéey bi incha allah rabbi noonu lañ ko bëggee. man la Khadim Lo nekk représentant MONAP mouvement des artisans patriotes. au niveau département Mbacké teewal fii Cheikh bu Kane bi nga xamante mooy coordinateur bi tey ji yàlla dogal mu nekk ci ay activité ba mënu fee teew euh, ñun ñu teewal ko fi di wax ci kàddoo euh, di rafet lu baax a baax jataay bii nga xamante ni ñi ko def mooy waa Pastef Pastef nag ku ko tudd tudd ay mouvement yu bari yoo xamante ànd nañoo moom te yaakaar naa mouvement yi bi ci ëpp doole gën ci am taxawaay ah yaakaar naa ne mouvement artisan yi bokk na loolu nag tax ñun depuis des années ñoo ngi liggéey ci nan lañ mën a fexe ba Pastef nekk au pouvoir loolu nag dañ koy def dañ ko doon def te yàlla tax di ko liggéey ngir gis ne président Ousmane Sonko bëgg gi mu bëgg Sénégal ak taxawaay bi mu taxaw ngir Sénégal ñu àndoon ko ak Bassirou Diomaye mii nga xamante tey mooy son excellence monsieur le président tey mu installé la coordination bi installé mouvement MONAC am ci ñoom yaakaar ñu liggéey liggéey bu am solo ba liggéey bi egsi fii tey kon nag tey lañ gën a taxaw tey lañ gën a dëggal suñu bopp ngir jàppale euh, li nga xamante ni mooy le régime actuel donte nag parti ku ci nekk soxla nga ay considération soxla nga ay taxawaay yu dëgër parce que ñun ñëpp dañu xeex ngir que ne liggéey bi mën a egsi fi ñu ko bëggee mais su ñu demee ba liggéey bi egsi fi ñu ko bëggee nag keroog lañu war a gën a taxaw ngir jàppale projet bi nit nag ku lay joxañ fi nga war a jaar ngir bañ nga fakkastalu la waaye du ne def lay critiquer tey ji coordonnateur bi fi nekk muy seen Cheikh Thioro ñu ngi koy nuyu bu baax di ko wax ne ko nag nag gestu base bi na gestu militants yi ak sympathisants yi parce que Pastef du militants yi kese du ñi am carte membre kese mm-hmm. dañu am ay sympathie yoo xamante ni li ñu xeex ci combat bi bari na ay militants yu am carte dès la début te xeexuñu liggéey bu toll na kon nag bu fekkee dem nañ ba lépp ñu bëgg ko delluwaat ci taxawaay boo xamante xay na peut-être mooy kii moo ma neex wala kii moom ma gën a jege la yàqu dafay bari te suñu sañoon projet bi dara du ci yàqu parce que ñoo ko xeex ba mu egsi fii te dañoo ko war a défendre kon ñu leen di wax tey jii ñun en tant que responsable yi nga xamante moom lañ doon ñun en tant que responsable yi nga xamante ni moom lañ doon ndax ñi fi nekk ñëpp ay responsable lañ nekk ay chef d'entreprise yor ay employé yor ay nit di leen liggéeyloo di former ay jeunes yu baree baree bari kon yaakaar naa loolu du lu tuuti te Touba nag bu ñu ko waxee état bi am na fu bari fu mu ko mën a jàppale waaye rawatina nag taxaw liggéeykat yi bañ mën a fexe seen liggéey mën a gën a ñoŋ parce que ñun li fi nekk ci ay secteurs yëpp mboolem corps de métier yëpp ñoo ngi ñox gis nañ ministre yi récemment rek génn nañ di wax seeraayu bant bi ñun ñëpp am nañ ay problème kon nag liggéey bi toll na foo xamante ni ñu delloowaat liggéey bi ci artisan yi xam seen jafe-jafe sinon ko defut liy yàqu dina bari tey jii nag ñi ngi taxaw en tant que euh, ñoo xamante ni ci mouvement bi la ñu nekk di taxaw jàppale Pastef ngir mu am maturité mais nag bu amee maturité ba pare nañu taxaw delluwaat ci base bi defaraat essence yi toog waxtaan xam ne liggéey bi ñun ñii ko doon defar di ko porter am nañ ay idées yu ko war a mën a jàllale suñu delloo ginnaaw wala ñu parti ñu li ci yàqu dana bari te boobaa nag ah ñun parti bi rek ñoo ci perte nag dañoo nekk ay combattant ànd ay nit ñu gore ci parti bi xeex lépp lu ñu war ci parti bi ñu def ko ndax man jàpp naa ni man maa fi ndaw li fi njëkk a taxawal mouvement bu jàppale Ousmane Sonko ndaw li fi njëkk a taxawal mouvement jàppale Ousmane Sonko man mii la kon tey bu yàlla dogalee tey man ma gëm projet bi comme li ma Ousmane Sonko wax parce que dañu nekk ci réew moo xamante ni depuis 1960 ba léegi ay njiiti réew dañuy ñëw di ñu nax di nax suñu yaay bu ñëwee ànd ak seeni mbokk lekk xaalis askan bi jël suñu ressource dénk ko tubaab yi nekk fi ba mu neex leen ñu dem bàyyi ñu. léegi nag bi yàlla dogalee suñu borom nar ñoo sewee ci 1960 ñu nekk ci mënuñoo am dara ci suñu réew te am zircon am phosphate am lépp réew mi ñu mën koo tabax ba mel na du ak Qatar. gumba yeeg lafa yi nekk ci mbedd mu war a nekk ci condition yu baax suñu borom nammeel gi mu bëgg Sénégal ak mag ñu baax ñi ñu jox muy Serigne Touba ak El Hadj Malick ñii kat du ma jox jox leen mag ñu baax pare leen bàyyi ñuy échec. ci la ñu génneel na Ousmane Sonko mii mu nekk impôt doon ko jub def fa 15 ans yàkkaarloo ñun ne bépp sénégalais bu taxaw ñu ne la sàcc naa benn dërëm génnal wax mu nekk fekk bi fi nekk ak lu nañ mu ñu daj ko jaar moom fu ne mësu ñoo taxaw ne Ousmane Sonko sàcc na benn dërëm ñun loolu moo tax tey ñu engagé ci politique mësu ñoo nekk ci politique ku fi nekk nii tey mësoo mësoo engagé ci politique mais nag bi ñu demee ba xam ne am na ko bëgg réew mi tey jël ba kanam tekki booba lañ ànd ak moom ànd ak moom ànd ak moom ba yegg si tey ji suñu borom jox ñu réew mi teg ko ci suñuy loxo ñu daj ci lu ne réew moo xam ne nag ay 87 personnes dañoo dee loolu du du ay caaxaan benn nit bu dee rek dafa diis kon nag ñun ñëpp dama bëgg nga xam ngeen xam ni réew mi tey jii na Dubaay ak Qatar war a mel instant bii nii foofu lañ toll pour liggéey ko kon nag dañoo pare ñun. jël sunuy engagement ak artisans yeeg commerçant yeeg moniteurs yeeg jànkati siñ Bàmba yeeg ñëpp pour man a taxawal maanaam mouvement bu mag maanaam fexee lépp loo xamante ne bi tey jii lu ñu may lu ñu may majorité la ci loolu moo moo ñu fi dajale majorité assemblée parce que nit boo ko xeexalee ba jox ko réew mi matuwaay ya muy liggéey tey moom la ñu war a xeex pour jox leen ko muy majorité assemblée kon nag sunu yaay yi ah bajjani gox yi fi teew yëpp bëgg naa tamit ngeen am ci taxawaay bu mag a mag a mag a mag ndax lii ñu nekk jaamu yàlla la am réew boo ci nekkee di ko xeexal te yàlla rek tax jaamu yàlla la kon nag yéen ñëpp di ngeen ci taxaw taxawaay bu rafet li ëpp solo nag mooy ñun dañoo nekk ci département bi ñun politique politique ñu ngir lu dem ci suñuy poos ñun dañuy politique ngir réew mi lu avancé réew mi loolu moo tax ñun ñëpp jël suñu engagement commerçant yii fi nekk yëpp kenn ku ne jël nga sa alal def ko ci parti bi ngir réew mi baax fii ñu fi nekk ñëpp ay liggéeykat lañ te nag dañoo pare nag ñun pour jël suñuy moyen bopp wàcc ci terrain bi campagnal président bi fi nekk tey mu am majorité assemblée lépp ëpp solo nag ñun département bi dañu fay nekk ah gis benn injustice boo xamante ne bi tey ñun loolu lañ doon xeex muy la coordinateur Cheikh Thioro Mbacké ndax ñun kenn duñu tënk ndax dañu ba war ba xeex jotee dañoo xeex man dama tëdd koso deux ans ngir réew mi te Ousmane Sonko moo ni ma réew mii man naa baax mën nañ ko tabax ba mel na Dubaay Qatar ndax ñun lañ li jot ci ressource sax yenn ci réew yi nga xam ne ñoo defale bi yoruñu ko ñun ñëpp ñu ànd ak moom jël suñuy bakkan jël suñu alal jox ko kon buñ tollee fii du nangu kenn koo xamante ne bi tey mën naa yàq régime bi fi nekk ci ay wax yoo xamante ne bi tey mën naa yàq lu bëree bëree bëree bëri te ñii dañoo soxla ay 5 soxla ay 5 ans soxla 5 ans yi dul jeex pour tabax réew mi kon te wax dafa mën a yàq te ñun ay taalibe Serigne Touba lañ ay taalibe Serigne Touba lañ Serigne Touba lañ yaakaar di woo nag doomi soxna yëpp am nañ ci ñoom yaakaar te di woo tamit ñi nga xamante ne bi tey jii ñooy cedd yi nga xamante Serigne Touba moo leen defar bañ doon ay sang ñu ngi leen woo ci projet bi ñu jàppale ñu ndax dañoo war a tabax réew mi réew mi dañ ko war a tabax te ñoom lekk lañ ci yaakaar waaw ndax ñi nga xamante ne bi tey jii parce que kenn ku ne xam ne Serigne Touba doomi soxna la El Hadj Malick doomi soxna la ñooñu ñoo defar ceddo yi bañ dooni sang. kon ñoo ñii tey jii la ñu bëgg ñu jàppale ñu ci ndax réew mi dañoo soxla tey ji avancement. te bu ñu dégg benn wax boo xamante ne bi dañu yàqal ndax ñun tey réew mii nga xam dañu ci am yaakaar ay 87 personnes de ñoo ngi leen di ñaan bu leen topp benn wax boo xamante ne bi tey mën na leen merloo ni ngeen taxaw jàpp ci xam ne réew mi moo soxla te tabax sa réew ci jaamu yàlla bokk kon nag ñu ngi sàkku nag ci bépp mbooloo bu fi nekk muy artisan yi muy jëwal yi muy jëwali sëñ Bamba yi muy ñi nga xamante ne bi tey ji ay commerçant lañ ñu taxaw taxawaay bu rafet ak bàjjenu gox yi taxaw taxaw bi rafet ci élection yi ñu jëm le 17 campagne yi nag ñun caaxaanuñ ci lépp lu ñu am danañ ko ci def xaaruñu ci état dara xaaruñu ci kii fi nekk ci dara suñu moyen bopp la ñuy jël campagne ñi ñu am majorité tabax réew mi ñëpp nekk ci naataange loolu nag laa ne woon naa ko jàllale di sant ñëpp di gërëm ñëpp di teg ci nuyoo bi itam militant yi fi teew nii doon ay jàmbaari fàkk tëdd ak am di jàmb yi ak mbokk yi ñëpp teew nañ ah di nuyu son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ci teg le PM Ousmane Sonko borom mbawoor mi ki nga xamante ni moo waral lépp ki nga xamante ne ci histoire politique man boog man ci li ma fekk bi ma juddoo ba léegi ku mel ne moom amu fi ku jàmbaare ni Ousmane Sonko amu fi ku amee ni moom fi parce que Ousmane Sonko mooy ki nga xamante ne moo ñu jëlee ci euh, loolu tubaab naan abolition de l'esclavage Ousmane Sonko moo ko fi jëlee parce que am na ñu fi nekkoon régime bi fi nekkoon doon régime boo xamante ne kenn mënu leen wax ne ay vampire nañ kenn xamul luñ doon sonaloon nit ñi ci injustice ci dictateur ba kenn xamatul fooy taxaw nit ñi sonn xale yi di génn di dem ci géej gi di rey seen bopp ñëpp dam ba découragé ngir yor gi ñu yoroon réew mi ci yorin wu bon Ousmane Sonko moo ñëw sauvé ñu ci loolu kon nag kooku war nañ xam mooy kan xamit lim liggéey lan la ndax liggéeyam bi mu liggéey ci dëkk bi dafa génn senegal génn Afrique wër àdduna sépp kenn laaj kenn kenn kenn amul lenn lu ñu ci contesté ci liggéey bu rëy bi mu fi liggéey mu Ousmane Sonko loolu nag waruñu ko caaxaane ndax du ay fo ndax loo xamante ne ay nit yu baree ci faatu te ñi ci faatu yëpp ay xale nañ ñi ci faatu ay avenir nañ waroon na fonder une famille waroon na takk ay soxna ëllëg ñu tekki dara ñu joxe seen bopp jaayante jël seen bopp affronté ak naafeq yi fi nekkoon ba faatu kon ñooñu kenn warul leen fàtte kon nag yaakaar naa ne képp ku nekk Pastef waxuma sax ku nekk Pastef rek ndax Pastef affaire patriotisme la dépassé na affaire carte yi gars yi wax carte mille francs rek lay jar yaakaar naa ne deret moo gën a fort 1000 francs te gars yi dañoo joxe seen deret ñooñu kenn waru leen fàtte ah dañoo toll ci période boo xamante ne dafa am loo xamante ne il faut ñu leeral ko nit ñi xam ko parce que bu ñu gisee euh, jataay bi ñu bari dinañ jiixi jaaxa bu ñu ñëwee Pastef fu Touba ñu gis ñi ne jaar ni ñi jaar nii loolu nag bëgguñu ko woon mais dafa am lu ko waral li ko waral nag il faut ñu leeral nit ñi ñu fi ñu jëm xam ne ñun doxuñu ci naafiq doxuñu ci ay lobby doxuñu ci ay parparloo dafa am lu ñu yëkkati ndax yàlla dafa dogal xiifuñu dañoo regg démb tey door a ñëw ndax benn nit balaa gore day fekk mu goor ci dara ñun nag li ñu goor muy liggéey daf noo doy sëkk kenn mosu ñoo convaincre ku dul Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo ñëw convaincre ñu ci bëgg réew mi ak teg réew mi ci yoon ak jub jubal jubanti moo tax ñu baliñ newoon jël suñuy engagement fas yéene ànd ak moom ànd googu nag dafa am loo xamante ne liñ naan lu yëngu lu nekk la ko yëngalu ko ëpp doole ànd gi dafa tegu ci dëgg tegu ci patriotisme loolu nag dafa am loo xamante ne olof da ko wax nee nañ jàngoro boo ko nëbbee soo moytuwul dina la faat dafa am lu nekk fii suñu parti bi doxalin boobu ànduñu si dama koy waxaat je répète encore parce que man du ma wax du dellu ginnaaw du ma wax lu ma gëmul te ku ma xam-xam ne du ma tooñ mais it ragaluma dafa am loo xamante ne dafa nekk ci parti bi mu metti ñu lool loolu il faut ñu wax ko mënuñu ko bañ a ñàkk a wax parce que nit ñi tam boo leen woowee ne daa am fu ma jëm il faut nga leeral leen li tax nga jël sa yoon fa séenee dox yoon wi nag li sëñ Abdou doon wax nañ ciy wax ñun yoon wi ñu dëgmal ah utuñu ci lu neex kenn lenn nañ ci ut muy teg ko ci dëgg dëgg nag dafa am lu ci sëñ Abdou waxoon waaye boo jëlee yoon wi dina metti waaye boo ñaagee jàll boo doxee tuuti boo geesee gis mbooloo sa ginnaaw foofu lañu nekk xaj na nag effectif bi ndaw na doole ji it ndaw na waaye nag dañuy jël lépp teg ko ci yàlla ak Serigne Touba parce que yàlla doo nga am doole te it lislaam li muy rëy rëy rëy rëy yaakaar naa ne ci ci lim bu néew la tàmbalee mu mettewoon lool ñu gëm ko rek jël yàlla jiital waaye gis nga tey fa mujj yoon wi itam di yoonu sëñ Bamba bi nga xam ne ci lañ nekk moom lañ gëm te ñun gëmuñu ku dul yaakaar naa ne tam ba muy tàmbali metti woon na lool nit ñi naan tàkk-tàkkal mboob la waaye gis ngeen tey fa mu agsi Ousmane Sonko jàmbaari fàkk tëdd gi ki nga xamante ne moo fi def lu benn politicien musul def bi muy tàmbali yëf yi metti woon na lool lool lool lool waaye gis ngeen fa mujj yaakaar naa ne régime bi fi nekkoon di Macky sàll ku ko affronté ba daaneel ko dara dootu la jaaxal léegi nag dafa am lu ñu visionné moo tax ñu ber nii suñu yoonu bopp génnuñu parti bi tey génnuñu parti bi suba génnuñu ko ëllëg du ñu ay opposant ay 100 pour cent Pastef lañu 100 pour cent Pastef brut brut li naan pétrole brut ñun sunu deret Pastef a ci ndox moo tax ba Ousmane Sonko ñu téye ko mu nekk ci ay xat-xat loolu ñun moo ñu yëngal ba mënut ñoo téye suñu sago di wàcc ci terrain bi di xeex sunu alal fekkewu ko sunu ñaq fekkewu ko sunu dara fekkewu ko dañ daan taal sunu oto fii dem dakaar xeex ba dugg boîte vocale tourné waat ñibbisi barki borom Touba li may wax am na ñu may dégg doy na ñu ci seede Touba gii dinaa la ko leeral ngeen xam ko Touba gii amul benn manifestation bu fi mu a am te nekk mu ci biir new ma koo xamante ne damay aj samay vitre oto de bu ñu sànnee lakkoro ma sel ma toog sama kër am na ci parti bi ñoo xamante ne loolu lañ daan def te tey ñëw ëpp làmmiñ li may wax ñoom xam nañ ko xam naa ko te dafa am loo xam te ne du wax du wax micro yi li may wax ñoom xam nañ ko man xam naa ko man du ma ragal te it dara fukkul sama bët du alal du lenn dafa am lu may ànd ak nit muy gore man duma ma trahir moo tax chaque fois bu ñuy def conférence de presse ngeen gis ci ginnaaw ñu bind fi non à la trahison parce que nit ñi mënoo leen woo ci dëgg. bañ ñëw ba noppi ngay dund ak ak ak fen ak fen lu mu sos lu nekk day daanu sëñ Abdoulaye dafa lu mu sëñ Abdoulaye dafa am lu mu waxoon ñun man duma ma référé ci ay Martin Luther King ak ay Karl Marx tubaab yooyu déedéet ñun dañoo am lu doy sëkk tàmbale ci sëñ Tuubaa yam ci sëñ Tuubaa sëñ Abdoulaye dafa am lu mu waxoon nee na dëgg bu tolloon ne bën bën bën bën bënu puso dina màgg ba daj àdduna ay fen bu tolloon na àdduna dina ruus di jeex ba jaar ci bën bënu puso loolu nag moo ne suñu parti bii du ñu ànd ak kenn ci kàcc du ñu ànd ak kenn ciy fen ndax fen taxuñu fee ñëw dëgg ñu fi indi ci dëgg lañ ñu woo ci nañuy dox ànd ak moom bu ñu noppee gis dëgg génn ñu ko seefle dañuy jël suñu yoonu bopp continuer xam ne ñii ñuy àndal dese nañoo doon nit tey dëgguwuñu léegi nag da ci am détail yoo xamante ne buñ ci duggee day xuuse tey dafa am lu ñu tax a jóg dañoo jëm ci législative yi euh, may wax militants yi ñi nga xamante ne ñoo nekk Touba ak sympathisants yeeg ñëpp ak soppe yi ñi nga xamante ne Ousmane Sonko moo leen soxal Ousmane Sonko moo leen tax jóg ñu xam ne liñ ne benn lam du jib day géwél boo ko joxee ndënd te joxoo ko galen du mën a tëgg gis nga majorité assemblée lañ soxla bëgguñu benn opposant am fa dara Sonko 100 pour cent ci assemblée bi nañ bëgg mu defar réew mi ndax réew mi dafa toll foo xamante ne réew mi dafa toll foo xamante ne il faut sénégalais yi xam loolu bu ñu kenn diaboliser bu ñu kenn yàqal suñu projet ñu gëm loolu nekkul naan ñu ay réew moo xamante ne dañ naan xaar leen fii rek 2050 déedéet waxuñu loolu de waxuñu loolu projet bi dafa jëm fii ba 2050 loolu lañ leen wax mais du question ne réew mi ci 2050 lay naat déedéet bu ñu yàkkamti nañ xam ne Sénégal dañ koy defar incha allahu rabbi Sénégal kenn mënta tee bu baax parce que lenn moo la koy wan yàlla daf ñëw dimbali ñii fi yàlla teg du tubaab bi moo leen fi samp du kenn moo leen fi samp ku dul yàlla ak population bi kon foofu xel mën na dal foofu xel mën na dal ñi nga xamante ne dañu leen a dénk réew mi ay at dafuñu fi dara yàq réew mi sonal nit ñi di rey nit ñi bëgg a wëlbatikuwaat jaar ci suuf li ñu gëmloo ne ñii ay lii nañ ak laaj bu leen kenn déglu ndax déglu leen amul sens nañ focus ci liñ focusoon ci présidentielle bi présidentielle bi dañoo gagné fii Touba à cent pour cent Touba lim gañe fii benn dëkk gagné fii raw gàdd gi moo ko jël. kon nag yaakaar naa ne damaa bëgg population bu Touba ñu tàccu leen te sargal leen te xam ne mention spéciale kuy bëgg Ousmane Sonko. kuy bëgg Ousmane Sonko rek waa Touba ngay jàppale ndax Macky Sall mosu fi am dara dañ koo duma ba bi muy dem summiwul ay dàllam daw la daf wëqeet kon nag ne nit ñi delloo si waat seen xel képp ku nekk ci parti bi di bëgg tuusal waa Touba ak di minimiser ñi fi nekk di minimise ñi nga xamante ne ñooy doomu soxna yi yaa ngi réere mbir ndax Touba ñëpp a fi nekk te ñëpp wóotu ak Ousmane Sonko kon nag nañ delloo naar bi xorom te xam ne waa Touba dañ leen a war a sargal njukkal leen mais kenn warul leen ginnaawal dafa am wax yoo xamante ne bu ko nit ñi dee dégg da leen découragé ñun nag foofu la ñuy ñëwee pour indiwaat nit ñi xamal ne leen dafa am fu ñu jëm li fi newoon jógu fi dafa am ci loxo yu ñu ko teg yoo xamante ne dañ koo sàmmut ak xam ni ñu koy waxee Ousmane Sonko digalul kenn mu xas sëriñ si fi nekk wax na ko ba taay nit ñi dégg digalul kenn mu mu ginnaawal kilifa diine yi lu dul warmale ak sargal leen kon nag na ñëpp xam ne ñun foofu nañ teg seen bët incha allahu rabbi nañ defoon ci présidentielle yi moom nañuy defaat dinañ ko campagnal ba mu saf sap barki borom tubaa fépp dina yëngu dinañ ko campagnal dinañ jël suñuy moyen def ci suñuy oto dinañ ko jël comme ni ko Abdou la waxee ak daam mi bu ñu bu fekkee ne saretu mbaam nañu am sax dinañ ko teg ci télé bi campagnal Ousmane Sonko ndax ñun amuñu ku Ousmane Sonko te dañoo bëgg projet bi réussir léegi nag dina am loo xam te lu tuuti dama ko ciy dolli xaj na sax loolu taxul ñu ñëw am na ñu may dégg ci yenn saa yi ñuy wax ne gars yi dañuy wër di wax rek ab daa am ñu ne seen ginnaaw dama je répète encore kenn nekkul suñ ginnaaw kenn financé wuñu ku xam na wax yaa dama ne xam ku ñu financé na wax yaa ngi dégg baax li ma wax ci tey jii ñi fi ñi fi nekk doy nañu doy nañu doy nañu seede billaahi wallaahi amul kenn ku jël dërëm moom def ci ñun ñooy jël cotiser fay suñu saalu bopp woo suñu fas yéenee leeral liñ nekk kenn nekkul suñu ginnaaw te ku indi kaamil ma waat ko te billaahi wallaahi ñun duñu dundee parti bi dañuy dundal parti bi barki borom Tuubaa mais duñu dundal parti bi dama ne dama ne kaymaa yi fi nekk kaymaa yi fi nekk di dundee parti bi ñun bokkuñu ci loolu ñun dañuy dundal parti Pastef incha allahu rabbi suñuy moyens nañ ko jël daf ko ci campagne bam saf sap li may wax nag ni ñëpp xam nañ ko parce que yaakaar naa présidentiel bi bii passé ku ci ràññeeku laa ku dul naa féq yaa ngi dégg ay nit ay jàmbaar commerçant marché occas yi buusa yeeg ñëpp artisan yeeg ñëpp ñoo ci jàpp dina dell seen dërëm daan ma woo naan ma fu ñu koy def ma leen jox numéro ñu ko ciy def te bañ pare ñoo ñu amuñ sax remerciement wala ñu récupérer leen sant leen olof nag dafa am lu mu wax ne nañ dompet sax sot la bokk te nit waaw góor day dolli ngóora gis nga lii ñuy wax nañ ko teg ci suuf du ñu gis ay gaynde ay jàmbar ay jàmbaar yi faculté yoo xam ne dañoo xeex ba dugg boîte vocale ñu dee ay ñoo xamante ne tekkiwuñu dara ñoo fi nekkoon doon saaga Ousmane Sonko ak di boole booy ñu leen di jàpp di tëj tey ñooñu tey bu Ousmane Sonko di ñëw ci dëkk bi ñooñu mën gis ci loolu mu doon lu ñuy dénoncer lu ñuy ñaawlu Ousmane Sonko xamu ko monsieur le président de la république son excellence Bassirou jomaa Diakhar fay xamu ko am na loo xamante ni nag ñun waa parti bi ñoo koy xeex du ñu nangu kenn ku indi sa yu bon di ko fi sotti loolu duñ ko mus a nangu tey duñ ko nangu ëllëg dafa am fuñ jëm am luñ bëgg am ñu ci dee ñoo xamante ne tey kenn mënut leen indiwaat ci kaw suuf kon ñooñu tey seen wayjur buñ gisoon ñi nga xamante ne ay vampire nañ ay buveur de sang nekkoon fi ànd ak Macky Sall yaa ngi dégg di lekk suñu alal tourné waat dugg ci biir parti bi ñu leen gis image yi yi ñi nga xamante ne dañoo doy seen xol dina jeex dina xam ne kon seen doom dañu ñun nag loolu la ñuy dénoncé ñoo ngi la lancé un appel à monsieur le président de la république di ko lancé euh, Seydina Ousmane Sonko di ko xamal ne ko parti bii nekk ci Touba am na lu metti lu fi am loo xamante ne patriote yëpp moo leen découragé loo dafa am ñu fi nekkoon doon boole su suñuy nit doon ñu jàpp di ñu tëj doon ànd ak Macky Sall mi fi nekk tey ñu gisaat leen fi loolu duñ ci mës ànd ak ñoom te dañ koy xeex ba keroog ñu dugg boîte vocale léegi nag li ñuy tëjee mooy ah, li mu safaa Gueye Mbër daan wax laay wax j'attaque je cogne et je gagne barki borom tubaa ñun dañuy attaqué dañuy cogné te dañuy gagné projet bii ñu nekk projet bii ñu nekk projet bii ñu nekk muy projet Pastef kenn mënuñ cee arrière loo kenn mënuñ cee arrière loo lu kenn kuy dugg suñu xel wala kuy jàpp ne di ñu jéem a kii naan ñi dafa am ay opposants yu nekk seen ginnaaw ak nangam nangam dama koy waxaat ca kaw ku yor sax xaalis booy téye boo boo boo détourné nit ñi wala ngay débouché nit ñi na ko téye ñun ñun xaalis tiitaluñu dafa am fu mu teg suñu bët Seydina Ousmane Sonko moo ñu ñor moom la ñuy liggéeyal tey moom nañu ñuy liggéeyal suba moom la ñuy liggéeyal léegi nag képp koo xamante ne dëgg la tax a jóg yaa ngi dégg ak bañ a dund ci fen ñu ngi lay tàllal loxo ñun daal ci dëgg lañ nekk ci nañu woo ñëpp moo loolu moo ñu may tey artisans yi nekk Touba indi fi seen représentant ñoom bëggoon nañoo teew waaye salle bi daa ndaw xajuñu fi yaa ngi dégg mais ki leen teew ki nga xamante ne mooy seen responsabilité teew na fi euh, jox ñu seen kàddu ñu fas yéene ànd ak ñoom campagne incha allahu bi laaj ñu kenn financement dinañ def suñuy moyen bopp liggéeyal Seydina Ousmane Sonko ba mu am majorité assemblée nationale. li ngay laaj mooy li ñu naqari ci parti bi waaw li ñu ci naqari nag euh, yaakaar naa ne suñu première sortie conférence de presse nañ ko moom la ñuy bantuwaat mooy. yëf yi parti bi du moomeelu kenn parti bi kenn donn woo ko ci baayam parti bi affaire yu patriotisme la Sénégal yëpp ko moom africain yëpp ko moom lu ñëpp bokk loo cay def na waxtaan ak ñëpp mais li ñu gis ci parti bi dafa am benn lobby bu ci am boo xamante ne ah, ñun wax dëgg yàlla ah, gisuñu si mu doonu dëgg parce que benn parti boo xamante ne tey li mu ëmb ci ci département bi ñu nekk kenn xamul ñaata nit ñoo ci nekk te tey koo toog benn kàddu la lay wax considération moo ci amul nit même yàlla mi nga xamante ne moo sàkk moo ñu moom julli ñuy julli jariñu ko dara daa bëgg ñu yëg ko rek ñun consi dañu considéré wu ci lenn autorité bu fi dugg duñ ko yëg xamuñu dara lu loo xamante ne tey président Ousmane Sonko bu fi ñëw dooru gis image yi sëñ bi li ma leen wax leer na li ñu metti wax naa ko fii léegi dama koy waxaat je répète encore ay apéristes yoo xamante ne ñoo fi doon tey di saaga Ousmane Sonko ñoom ngay gis ci image yi tey bu président day ñëw ñoom ngay gis ba noppi ñu leen di sant nga gërëm bàyyi ñu fi nekkoon doon xeexal parti bi bàyyi jàmbaar yi fi nekkoon yi di génn seen million di ci def ñu baleen ginnaawal leen loolu moo ñu metti loolu moo ñu metti ba noppi respecté wuñu suñu première sortie dañ koo def le coordinateur ne day am ak ñun réunion dem ba ci biir biir bi mu ne day séparé ni dañ kii ak kii lay waxal ma bañ man maa ko rejeté ne loolu du am ñun ñu nga xamante ne ñoo bokk di xeex affaire bi ñun ñëpp ngay boole teg taaj ñu waxtaan continuer liggéey looloo tax ñu beddeeku nii fas yéenee ànd donte ñett nit na ñu ànd ci dëgg gi nga xamante ne moom la Ousmane ko woote looloo looloo waral lii kaddu yi nga xamante ne da koy yëkkati jëmale ko ci doomu soxna ci ceddo yi loolu moom la concerné moo koy dund yaa ngi dégg moom mi ko wax moom ko wax dam leen ngeen laaj ko ko ñun doomi soxna yi fi nekk ñooñu gënal ku dul ñoom parce que ñooy suñu sëriñ yaa ngi dégg bu baax li ma la wax ñun ci doomu soxna yi nañ jébbul man mii di wax ak yow doomu soxna laa ndax gor su set wi ta ma jur du ma ceddoo xaw ma sax luy ceddoo moom loolu moom mi koy dund dam leen ngeen laaj ko ko man loolu concerné ma xam nga lu ma concerné Ousmane Sonko te du ma nangu mukk ko yàqal man loolu ma concerné li ma ci li ñu wax amul tànk day dox te léegi lépp a Euh, daanaka boo waxee fi benn wax suba mu wut àdduna sépp li mu wax yëpp dégg naa ko li mu wax lépp dégg naa ko bi mu duggee ci parti bi yàggul mais loolu amul sens xam nga lan moo am sens yaakaar naa ne boo demoon police di déposer benn papier ñu laaj la sa quarante nga génne ko est-ce que dinañ fa nekk naan sa quarante bi yàggul déedéet validation bi nañ soxla man dañ dañ ma valider man xam naa. je suis un vrai te moom li muy wax bu fekkee ne dafa ne man awma carte Pastef day fen waxu dëgg man sama kart ngi nii dama koy wane termini daal sama carte ngi nii leer na naañ yaa ngi dégg ñun duñu doonuñ ñoo xamante ne doonuñ ñoo xamante ne dañuy nekk ci réseaux sociaux yi di mbapp mbappeek ak di wane suñu bopp waaye ku ne xam na ki la mën moom xam na bu baax xam naa bu dee man liggéey naa ci parti bi moom xam na su dee liggéeyuma ci parti bi xam na cest dire nag li naan borom gémmiñ kuy naaj ci jox jàmm moo leen dal dafa am seen kàcc yu ñu nekkoon bañ ko ko wax mën naa ko dénoncé moo tax fi ñu toll nii lu ne dinañ ma ko taqal waaye nag fi ñu toll nii fi may waxe ak yow nii liñ naan ŋaaxi mbott teewul gaynde naan cib dégg mooy li nekk jaa ngeen jëf